addu si wér gu yaram bi rek mhm. nit daal bu tànnee bu wéradee moo ko teg boppam la mhm. nit ñi nekk ay nit sëñ bi toog nga fi weer ak jëmlaal mhm. déggoo santé Ousmane Sonko déggoo Ousmane Sonko toog na sept jours ñu publier si Facebook ndax moom soo xam naa ne amul accès si Facebook am ñu ne Ousmane Sonko lay def du yaa daa fee ndax sa nekk campement kaw ko moom lan kaso campement jigéen ña sëñ bi yaa koy bu ko defee rek nga commencé dégg ay wax yu soof. daanaka ak konoog centaine à danger rek. mais centaine à danger boo xam sa loxo nekk yaa ko keneen sa bopp. kon yaa ko bopp. kon yow jàpp ne Ousmane Sonko daanaka li ko dal lépp TFM la. sëñ bi ba bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu loolu kese ko dese tamit est-ce que ci wàllum. xeex tamit est-ce que mënuñu ko ko nangul comme que. Euh, na daanaka tere nañ ko dem tere nañ ko dikk wala. sëñ bi. waaw. ñun jaatuñu. Mhm. woote ñun force bi ci diine li. Mhm. ci àdduna la nekk li mu yàlla tëgg ko ko moom moom neex mu soit ko jël ko. Mhm. soo ko moo jël soit day génne Sénégal jana jëf lu nekk. mais di ndigal di ko yàlla jox yàlla forcé ko si. bu ñu ko si dal la ko assuré. du tiyaaba joo xam du ko bàyyee yàlla ko si dóor ay daan du du tiyaaba joo ko fas nit ñi jàpp ne mën na sa génn safara da ko si fekk yàlla ko xam man naam bu jëlee réew mi mooy musibay àdduna am yomal xiyaam ak àdduna yàlla xam ne ko xëy bi la yàlla mbir yàlla mais même pas indi fas nit ñi ay ay détails ñàkk sawar yoo xam wóorul yow fekkee am na sa xel mhm. li koy mënoo ba ay li koy ak na koy def mhm. xam nga ne lii la moom mooy def gaz la fee bu ko defee gars yi bitti mu si biti xam nga ñoom boo gisee si plateau bi naan Ousmane Sonko dafa damaa dégg dafa def malaise loolu mooy la aw li ñàkk fee mooy la ñoom bu jékki-jékki bëgg carrière ay bés rek ñu ne lañ koy carrière gis nga sax Bara Ndiaye ñu gis xool sax Bara Ndiaye bi su wootee affaire ñaan moo wootee ñaan woote ay yi tourné bu ah, dugal si ñun si détail ñàkk fayda mhm. di ko fawee te bu dee waxoo si àq la si yàlla rek juste bi ngay jël jàpp ne yàlla mën na la dëgg yow. Mhm. yaa xam gën nga ko boo koy wax yaa xam gëmoo ko. juste boobu moo attan Ousmane Sonko ni ko dañ laa teg ci diggante ay saa ak yow deux ans pour cent kenn. Mhm. Ousmane Sonko tëj na këram deux mois yoo xam kenn topp ko. pourquoi ñëpp loolu ñun wax saa xalaat daal ne justice bii rek kon moom moo attan Ousmane Sonko dafa tëdd Ousmane dafa tëdd da ngaa dégg kenn wax. Mhm. da da dégg kenn wax ko. justice justice da nga ne justice da nga am na justice boo xam attan wala Ousmane Sonko dafa tëdd dafa tëdd deux ans sax soo ko nekk këram tëj na këram ñaari weer ak genn wàll mmh. kenn génn si plateau yi du ko defaan daan maanaam Ousmane Sonko juge da nga koo daan nga ko ah? mmh. ko kenn laal foofu bàyyi boo ko laalee ak lu taxawaay bi ñu ko jàpp mmh. te boo ñàkkee fayda ba appareil bi nga sa ab appareil dong la maanaam manipulation la ak ay programme maanaam appareil bi Ousmane Sonko yoral de manipuler état nan koo bu jël ñu si loxol état maîtrise na ñett mhm. ñaar ya a nekk mu def jëfi politique d'accord xam ne lii du diine mu waxal ñoom wax ji leer buñ ko mënee bàyyi xayru buñ ko mënta bàyyi mu assumer te di def li def mu jox ñusieen naan laa tëdd na vingt cinq ans de prison mhm. ban génne yàlla da ko jox nguur waaye da ko tëdd ci ngor d'accord ak jom léegi léegi yow lan nga ak jom léegi yow la nga jàpp ne. waaw mooy moo war a nekk taxawaayu Ousmane Sonko su fekkee jàpp nga ne xiifal mi aussi du euh, du pexe. parce que euh, day. Ousmane Sonko amul taxawaay léegi léegi aussi. Ousmane Sonko amul taxawaay moom bay ba sëñ bi bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma posé question moom jàpp na ni lépp li nga xam ne dañ ko ko teg ci wàllum yoon ak ak yoonal aussi nekk loo xam ne dafa jaar yoon maanaam su nekkoon def nañ atta bi na mu waree daan ko daan yi nga xam ne moo war xëy na moom du tàbb ci li nga xamante ne loolu mais dafa jàpp ne moom Ousmane Sonko ni ñu ko àttee ak ni ñu ko tëjee kaso ak ni nga ne noonu lañ ko téewee kaso sax nekk loo xamante ne dëppoo na ak yoon donc yi léegi yow dan nga jàpp ne Ousmane Sonko réellement moom la war a def ngir génn ci jafe-jafe yi. xam dama lay wax lu ko sabab. Mhm. loolu moom moo ko njëkk moom mu njëkk mhm. la jot gouvernement ba ko def. Mhm. Ousmane Sonko dafa dem ba dafa jotee ci toog Macky Sall jotee def kenn public bi la euh, état la jotal. loolu moo ko sonal bu doon yi rek ay bi ñu war a indi jafe-jafe nga dem ci nga dem seet ku nekk si nguur bi négocier ñoom mu jeex mu jeex jeex na. Ousmane Sonko dafa nekk ba état la am problème état Ousmane Sonko ñoo fi njëkk a taxaw di défier am. d'accord di ci dikkale ko général di ko lekk lu mel ni xañ. di tëdd foog de la armée ki yor armée Sénégal lan tey ji moom bu soobee tëdd nelaw kookoo tax mu di ko lekk lu mel ni xañ. Ousmane Sonko benn organe bu état amal boppam. d'accord nga xam moo tax yooyu moom nga a a di woote si mooy moo si tuddul turam wax ko lu ñaaw. kooku nag jur gi jàmm bu loolu bu ko jokkoo bu boo séntu bu séntu soo ko jàmm jàmm nit ki ko joxal boppam. nit ki yow yaa ngi bëgg jàmm mel ni jàmm. d'accord mais li mu bëgg la jàmm si yàlla ñëw na jàmm du am jàmm. Mhm. mais Ousmane Sonko amatul moom lu koy génne jafe-jafe yi nekk nit ñi ñoo nekk ay nit. d'accord ko. d'accord mais Ousmane Sonko ñu nekk ci ginnaaw un tour. Mhm. dañuy jël ak moom am na ñoo xam ne bëgg a am na ñoo xam ne dañoo bëgg a exister ngir seen biirum bopp personnel. ma ma ma bu fekkee Ousmane Sonko Mm-hmm. waaw Mbadou yow da nga jàpp ne kon dafa am ñoo xam ne ay jege ñaaleem daanaka sax euh, li muy dund dañ ko arrangé wala ñoo ko bàyyi ci biir. da leen a arrangé du moo moo leen la sa mbokk di nekkee ci Ndakaar ngay am lu la. barke barke alxuraan kan classe dambu dambu dambu yi ngay tudd ngay di ah. jëm ci kanam. Ousmane Sonko mooy li ko sonal laaw di ko leen sonal. maanaam dafa bari ay manipulation yu nekk si ginnaaw moom mënut ko dugg Ousmane Sonko fii génn rek. Mhm. Sénégal du mën a xam luy question Ousmane Sonko. Mhm. Ousmane Sonko oto bii mooy ak defaram mais image yi génn. Mhm. bu fekkee lu mu wax Sénégal yëpp moo nekk jëmmam. amul benn yëpp bu ne ci ginnaaw bu koy forcé ngir mu doon yi daa bëgg a suqal Sénégal. Ousmane Sonko kaso bii mu tëdd bis bu génnee parole yi muy waxaat ak li muy taxawaat. mooy tooy fee a moom ci réew mi. ndax ñooy sax xam réalité yoo xam ne ay benn benn su ñu ko dëgg si yàlla tax. ak ñoo ci maam dina gëm Ousmane Sonko moo leen mën a génn ci jafe-jafe yi nekk. mais kon kon yow li xam-xam la ko topp. kon yow kon yow li Cheikh Bara li li li li Cheikh Abdou Bara waxoon ñëpp ko xam Ousmane Sonko xamul sëñ bi da am na jamono ay guddi yoo xam ne. manifestation yi day am ci boo ko ak ñu tëj la mu ne ñu ko séddoowoon dafa am ay nit ñoo xam dañ ko dañ koo téye moom en avance. d'accord séddoo ay mbiram ñii di yëngal fii di gërëm ñii di yëngal fii di gërëm ñoom daal yëngal fii di ak gërëm ñëpp nag la état bi jël takk si buum ba mu dëgër ñu téye ko téye appareil bi. dafa soo ko nag mooy victime bi gën a mag. loolu nag faaw moom ay nit ñu koy yéene jàmm. Mhm. bëgg ko si yàlla rek tax ñoom ñëpp si mën a génn. d'accord mais bu dee kuréel kuréel yi naan ay rassemblement manifestation lay def si gox ko xaal yooyu mhm. ñooñu bon sañoon dañuy woo Macky Sall ñu ko dee gën a tëj. Mhm. ñuy gën a def dossier ñuy gën a existé ñu dem gën di dégg ndax ñoom loolu lañ ci bëgg population boobu lañ ci bëgg te bu dul Ousmane Sonko duñ ko am jeex na wasalaam loolu dong la de. d'accord mooy déggul merci. merci beaucoup ñu ngi lay euh, nuyu di la di la bu baax a baax ah, euh, pour juste quand même lever l'équivoque ce n'est pas euh, Cheikh Abdou Bara <laughs> moo doon wax c'est juste une intervention bi nga xamante ne moom waa ji jot na ko def par rapport ak génnam parce que tamit moom Cheikh Abdou quand même am na loo xamante ne waxoon na ko ci wàllu opposition rawatina ci askan ne ñu ci bari dañuy ànd ak Ousmane Sonko waaye bëgguñu ko gëmu ko donc euh, moom quand même il euh, ki nga xamante ni moo di bon entre guillemets daa mboj par rapport ak li nga xamante ni moom la mujjee def ci génn bis région nekkee am na keneen ñu jël ko 77 810 90 90 salaamaaleykum. ci loo nekk. waaw maa ngi sant yaa ngi si